mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñiy seetaan ci suñu euh, site seen site officiel di senego point com wala boog yeneen plateforme yi Facebook YouTube Twitter Instagram tey ñu ngi daral koo xamante ni Sénégal moo ko ñor Blaise Pascal Cissé moom mooy njiitu euh, Force Sénégal président Force Sénégal Blaise ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ko askan mi ñu seetaan. ñu ngi leen di ziar Max di leen ndokkeel di leen remercier ci euh, invitation bi. Mm. di nuyu le peuple sénégalais. di leen ndokkeel aussi ci tabaski bi ñuy génn. Mm-hmm. mbaa sonnoo ci taw bi. <laughs> waaw mais on fait avec. <laughs> voilà on avec moom lañ doon ñaan yàlla yàlla na saafara lépp taw bi fi wàcc euh, Blaise lu ñuy njëkk a waxtaanee rek muy benn actualité boo xamante nii mm, ba tey mu ngi nekk actualité ba tey ñu ngi koy bàyyi xel te waruñu koo génne suñu xel comme yow dañ la. xàmmee ci société civile force Sénégal ak lépp loo xam ne mooy xew ci biir réew mi émeutes yi weesu muy coow bi nga xam ne amoon na fi ba askan bi wàccoon ci mbedd mi ba mu def fukk ak ñeent maanaam quatorze morts fi mu nekk nii ba tey coow li dafa mel ni kii kenn waxatul si ñooñu dee alors que président taxawaloon na benn commission d'enquête pour ñu leeral lu ni mel mais ba tey furaas daal di xëddéem waaw je vous remercie donc euh, muy comme ni nga ko waxee mbir mu doy waar di wane benn insouciance. Mhm. donc euh, benn euh, manque de sens de la responsabilité venant du président de la République. Mhm. et man bettuma. Mhm. xam nga aussi koo xam ni 14 morts. de sa sa réew. Euh, yow bi ay français dee da nga daw cristal sa kanam bi mel ni ku diwoo karité mel ni kuy bëgg a dee xam nga fi ma waxee ndax ay tubaab ñoo dee jaral la nga dox ci neige bi ci mhm. glace bi triste mhm. euh, quatorze personnes say doomi réew à la fleur de lage ñu rey leen comme comme ça des ginaar mhm. ci ngoon gi nga toog ci plateau bi di mbalak naan ay jakarta di ree di xaqataay c'est-à-dire euh, Macky Sall man je doute même franchement par de sa nature humaine est-ce que nit bi yàlla sàkk. ci hmm. di ko yàlla bindee. Hmm. Macky Sall il est donc euh, commission bi bi mu ko waxee ñun ñëpp xam nañu ay dóor la. Hmm. moom euh, façon la. il n'a aucun respect pour le peuple sénégalais il joue avec le peuple sénégalais day fowe seen wér-gu-yaram day fowe euh, seen santé day fowe suñu sécurité donc nit ku mel noonu ah, wax dëgg yàlla man pour man sénégalais li jot tey moo ñuy conjuguer le Sénégal sans le verbe Macky Sall. Mm-hmm. Macky Sall euh, bokkatul nekkatul élément boo xamante ne euh, sénégalais bu ne war nga koy tëddaale. Mm-hmm. réew mi dafa toll foo xam ni doomi réew mi ku ci nekk war nga interroger wu mais ku ci nekk war nga jël say propres responsabilités par rapport ak li nga xamante ne mooy xew. Mm-hmm. mais Macky Sall bu ko kenn xaar ci dara ah man de loolu laay conseillé ku nekk. mais est que est-ce que Macky Sall euh, le moom rek. moo def lu ni mel parce que am na ñu fi jóge te à tout moment dafay am ay dee ci ay euh, mbirum politique coow politique moo koy indi gis nañ fi ñu dem si yàlla moom du Diop ak ñeneen ak ñeneen mais nañ naan dañuy def enquête mais enquête bi du mujj fenn dafa mel ni politiciens yi bu ñu demee ba jot réew mi rek dañuy fàtte lu ni mel. waaw xam nga loolu euh, dafay dem ci gestion état. c'est-à-dire mmh. Sénégal depuis indépendance ba léegi amaguñu état. Mmh. Ah, dañuy foowee euh, askan wi. Mmh. xam nga ji nga réew. non non bu leen tragédie dalee ci réew yu mag yëpp ah. hmm. euh, dañ koy évaluer bu leen yàlla dimbale ba ñu génn ci du ñu def comme Sénégal de maanaam génn 14 morts ñu dem seen yoon 23 juin 15 morts ñu xëy suba actualité bi nekkat ci leneen. ça hmm. se passe pas comme ça. Hmm. même deuxième guerre mondiale. mais la après bu mu paree mais les contemporains dañu toog waxtaan. am ñoo xam ne sax dañuy démissionné. oui dañu ne lii nii mais imagine xeetu arme yi am ni mais imagine leen l'an 2000 ak progrès technologie bi yan xeetu missile ñooy am ci àdduna bi. Mm. mais il nous faut ñu taxaw ci ba lii nii dootu fi amati. 23 mm. juin kenn évalué wu ko. Mm. lii nii dañoo xëy suba ku nekk dem sa yoon. lii mooy waral ñuy am ay problèmes yoo xam ne c'est d'ordre cyclique dañ koy mm. wax mm. toujours naan suñuy problème bu ñëw ñëwaat mm. parce que lii moo tax te ku ci dee léegi dañ naan ku ci dee yaa perte non mais perte dañuy jubilé li gën a dee kay laa wax des leaders politiques dañuy malgré les quatorze morts on pu afficher leur sourire brandir leur mains comme victoire te pourtant que ce sont des innocents yoo xam ni euh, xamuñu luy suite beauté mësuñu gis kuy Ousmane Sonko. Mhm. xamuñu kuy Adji Sarr. Mhm. ils habitent à des centaines de kilomètres. Mhm. de de fi mbir yi xewee. mais imagine ce système loo xam ne yow sa yoon nekku ci. ñi ko séq du dee. seen i doom du ñu dee. seen jarbaat du ñu dee. mais yow mi dëkk Tambacounda. ñu réglé benn système boo xam ne dañ lay fekk foofu ñu rey la mais c'est extraordinaire ak yow mii di reere fondé. di yey gerte caaf comme sama genre bi. Mm-hmm. mais problème am na ci réew mi. Mm-hmm. c'est-à-dire dañu nekk ci benn situation d'insécurité boo xamante ne. Mm-hmm. alarmante boo xamante ne. il faut que euh, à travers cette affaire. ñu bañ a bàyyi ces trucs de quatorze morts là. soo gisee man sama communication temps yëpp dama ko ciy téye. et je compte téye ko ci. même bu jaree six mois dama ko ci téye parce que cette façon de faire dafa war a jeex. suba sa doom lay doon wala sama doom. wala nga taal sa oto di liggéeyi. taseeg ful bi ñu daaji sa oto. wala ñu daaji sa boutique wala ñu taal sa kër. mais balaa ñuy wax ci wàllub euh, sécurité boobu ak insécurité euh, ci côté boobu noonu ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci mois de mars bi ñu génn te ñu toll ci 14 ñu leen di jaale seen famille encore. Mm-hmm. Euh, kan mooy responsable bi Macky Sall le président wala boog opposant Ousmane Sonko wala boog askan bi ci boppam moom mooy responsable parce que ku ci nekk nee nañu. am na ñu bëri ñoo xam ne seen propre responsabilité la ñu génnee seen propre gré la ñu génnee. waaw xam nga le on peut le Euh, walakin aksaral naas laa ya'lamuun hmm. la plupart d'entre eux ne savent pas hmm. du affaire mbooloo hmm. euh, xam nga euh, mais les responsabilités il faut pas chercher de midi à quatorze heures mmh. Ousmane Sonko a envoyé ses enfants à la mort mais Macky Sall les a fait tuer lii rek la il n'y a que deux responsables ñaar nga wax benn Ousmane Sonko a envoyé benn la Ousmane Sonko beneen bi Macky Ousmane Sonko tout simplement moom lañu dégg mu woote mortal combat nañuy waxante dëgg ci réew mi. dafa am keneen koo dégg baat boobu ci moom. moom moo wax ne leen jaral seen bakkan. vrai ou faux. moom moo wax Macky Sall loxoom dina takk deret. mais deret boobu xam na ni du deretu doomam. Ousmane Sonko xam ne ni deret boobu du nekk deretu doomu Macky Sall. donc le peuple bi nga xam ne moom lay woo ne def ko bëgg a dimbali. dans tête. dans tête il accepte que les enfants du peuple vont être tués ba mu taxaw ma wax ko. mais ça devient grave. et le peuple n'est pas responsable aussi ci côté boobu noonu. xam nga le peuple fi ma mën a bi dem wuyu si peuple bi dem jàppale doomu aadama nee tamit peuple boobu li leen naqar naqaree daf dafa dafa dafa rax ci mbir mi moo tax ñu génn. xam nga loolu Macky Sall moo ko utiliser technique de communication boobu. surtout sûrement ces experts en communication. ñoom ñoo ko wax ni dugalal loolu maanaam pour éviter. Euh, jox Ousmane Sonko buzz bi. Mm. nga récupéré ko wax xale yi ne dégg naa leen. Mm. ñun ba mu ko waxee rek ñun xam nañ ñi xam nañ li muy wax. Mm. c'est comme bi muy naan dégg naa kilifa diine woo nañ ma. kenn woowu ko. dafa dem ba dafa tiit. léegi nag tiit boobu. il a été conseillé techniquement. ci côté communication merci communication merci et ça a fonctionné. Mmh. mais maintenant pour le peuple. il faut nga xam ne la masse effectivement elle est toujours manipulée. booy yi euh, euh, ils sont d'un discours. Mhm. et ce discours il est un discours mensongère. te loolu la gaa yi di bañ a dégg. dafa am discours bu ñëw ci réew mi. Mhm. gëm loo leen ni France baaxul ci yéen. Mhm. gëm loo leen ni projet bi ñu yor ci yéen jar na seen bakkan. Ousmane Sonko l'a dit clairement nee na leen euh, plainte bi projet bi lañ bëgg na saxal te kenn waru ko nangu. mais projet boobu projet yàlla sax yeggul foofu. doomu aadama tey ñun. nous avons euh, yegg nañu ci euh, mën a daw les soixante cinq millions de kilomètres qui nous séparent de la planète euh, du euh, de la planète Mars. Mm-hmm. tey mmh. comprendre nañu que ndekete ñun dañu nekk ci benn galaxie boo xamante ne. Mm-hmm. Euh, pour ñu daw génn ko il nous faut parcourir la vitesse de la de la lumière. Mmh. c'est-à-dire trois cent mille mètres seconde pour ñu génn suñu galaxie en deux cent mille ans. mooy vitesse vitesse supérieure. mais kon nag xam-xam yooyu dafa jaar sax ay bakkan dee na fi. Mm-hmm. day jaral sama bakkan. et puis de moo tax man dama jot dama j'invite moo nami Ousmane Sonko et frère. Mhm. puisque dama dégg. Mhm. biñ ko libéré mu ne moom dafa woote débat d'idées et de programme. moo ko wax de. Mhm. Pascal l'invite pour mu ñëw ñu waxtaanee projet bi ngir ñu libérer xale yi. parce projet bi moo ne ci bopp xale yi te xale yi nee nañu. ñoom projet bi jaral na leen seen bakkan. te man Blaise en âme et conscience man dama ne Ousmane Sonko lii muy wax projet. waxuma bakkan. mais projet bi mooy génne fi Macky Sall rek jëlee fi le président Macky Sall dem ci nguur ak projet système bi ñuy wax fi système bi baaxul. xam nga système bi. wala léegi dañoo bàyyi système bi baaxul léegi jaral na ma sama bakkan. moo xew système bi <laughs> xam naa ne doy na waar. Hmm. mais li ma la bëgg a wax mooy. Hmm. Euh, c' est pas pour chahuter ah. dañuy waxtaan. Hmm. je dis aux Sénégalais et à la jeunesse. Ousmane Sonko jàmm rek laa ko yéene. je fus parmi les premiers. lan dès le lendemain bi Adji Sarr déposé plainte maa njëkk a communiqué ne viol amu ci. man xam naa ni viol amu ci. moom Ousmane ko ci biir conférence de presse am wax na ko. nee na ñoom wax euh, mandat dépôt tëj ma yëkkatiwu leen mais dañu ne nañ ko indi ñu avoué ko avoué loo ko rapport sexuel bi. wax loo ko quoi def loo ko ni ni seq na ak xale bi dara. Mm-hmm. mais doxal réew mi ci Adji saar mais boo doxalee réew mi Adji Sarr moo nangu ko doxal réew mi. Hmm. mais ki nekkul kan moo nekkul ci réew mi ci di doxal réew mi ci réew mi. Hmm. mais c'est tout le monde. Hmm. donc yeggul foofu. mais quant à le projet proprement dit. man laa invité Ousmane Sonko. mu nekk débat mu soumettre ko aux critiques. et j'invite les spécialistes. les économistes. ñu toog ñu waxtaani ko parce que nag dañ cee fas bakkanu doomu aadama et loolu c'est grave. te man damaa jàpp ni. Ousmane Sonko lii muy wax. waxuma de. sa bakkan mais ku ci rendi sa ginaar tam xarit da ngay ñeetaani Ousmane Sonko n'a même pas la P du mot projet li muy wax benn xamu ci dara amul incohérence euh, incohérence totale la et ça cin tient pas debout te mm. projet boobu sax kenn ñaanu ko yàlla pour Sénégal mm-hmm. parce que teguwul ci xam-xam euh, teguwul ci objectivité mm. euh, te niñ ko solee ndaw ñi nii mm. wax dëgg yàlla les quatorze morts yi war na tax moom mu accepté man li ma ko lancé défi bi mm-hmm. mooy mu ñëw prouver lu tax xale yi dee jar na ko ndaw yi ko topp mu won leen la preuve que ni projet bi mu yor projet bu solide la. Hmm. jar na doomu aadama. Hmm. di ci ñàkk bakkanam hmm. c'est très important. voilà euh, foofu lu am solo la muy li nga xamante wax nga ko mais euh, balaa ñuy dem ci dernière question bi beneen question bi nga xamante ni moom laa bëgg ñu tëjee ci côté moor yeeg ñoom seen ñoom 14 morts ci euh, émeutes yi amoon mois de mars Covid bi li ci dee moom deux ans yi kenn xamul nan la toll. ak yeneen ak yeneen accident yi tey rek yaa yaa yaa des morts à Podor 13 xaw ma 14 morts. ay bis yu doon def course 83 blessés démb moto bu ñu mbëkk borom moto bu mbëkk mu dee ci circulation bi tamit mooy loolu mais dafa mel ni kii benn moment Sénégal dañuy bay bayal dee dañ ko banaliser léegi boo dee au lieu ñu def critique xool nan la ñuy saafara lu ni mel gannaaw bu weesoo ndogalu suñu borom mais état waxoon na fi ay permis à point ay ay ay ay sanctions yoo xamante ni ci yenn chauffeurs yi nga xam ni dañuy faat ay doomu aadama te du tegu ci yoon loolu nan naka nga koy jàngatee ak lan mooy solution actuellement ci wàllu googu. xam nga sa biir wax da nga wax benn wax bu moo bu doy waar bu am solo bu résumé lépp. Hmm. la banalisation de la mort au Sénégal. bay bayal lii livre la quoi. Hmm. livre bu ñu war a bind la macha allah maa ngi lay sant di la gërëm yàlla na yàlla di dolli. Euh, franchement c'est très pertinent. Ah effectivement c'est de cela il s'agit. Hmm. Euh, gis nga Maguette euh, da ngay jékki nga gis ñu ne la sénégalais rey nañ ko Espagne for nañ. kooram. Mhm. du mujj fenn. Maguette est-ce que xam nga ni George Floyd bi mu dee. émoi mhm. bi mu am Sénégal. 14 mhm. morts amuñu ko. incroyable. xaw ma ndax yéen a ngi comprendre li may wax. def nañ enquête bañ jàpp policier bi. ba pare ni mu diisee ci ñun Sénégal. deewu xale yi sax diisee ko ni ñun dañoo xëy ginnaaw suba rek. jàll ci leneen mais Floyd moom. Sénégalais yi sax dañoo sukk seen tànk. à l'image de tonton Youssou Ndour sama grand frère ou je ne sais pas. Mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen dañoo def ay photo di sukk seen tànk quoi. xam nga façon ko américain di defee le mal est profond. c'est-à-dire bi. Euh, man dama lay ñaan koy teg nga koy laajaat di ko laajaat. Mm. parce que question bi. Mm. débat d'actualité nationale la ci au troisième toll. Mm-hmm. nga xam ni doogam doomu aadama tey civilisation humaine dafa nekk a la à la conquête de l'espace. Mm. aujourd'hui nous avons compris que notre galaxie aujourd'hui ndekete. comme benn grain de sable. parmi des centaines de milliards de galaxies. xam nga ndax yaa ngi may dégg. je fii la àdduna toll. tey bakkanu du Sénégalais bi dafa dem moment boo xamante ne léegi. ñun suñu bopp parce que adduna bi dañuy xool. xam nga technologie baa ngi fii. Mm-hmm. nouvelle mm-hmm. réseaux sociaux yaa ngi fii. gars dañuy xool sénégalais yi ni ñu mel. Mm-hmm. mais dañuy gis ni bakkanu Sénégal mooy Sénégal mooy dem ba dootul am valeur. te loolu moo nangoo nar xew ci réew mi parce yow li ngay wax loolu lay tekki. te loolu dafa grave. Hmm. tey eh, américain bi euh, bu ñëwoon Sénégal boo ko dompotee FBI taxaw. nga am problème waa léegi lu tax ñun ñu nangu léegi ñoom ñu mën a nekk ci dimension boobu. Hmm. c'est que Séné li ma bëgg a wax foofu sénégalais message la am pour ce peuple. Hmm. le président Senghor dama ko dañuy bi ñu nekkee xale ñun ñëpp bon ñun ñoo leen mag yéen ay xale yoon ngeen. dañuy dégg mu ne euh, euh, l'an mille Dakar sera comme Paris. ñun dañ baat boobu dañ bi ñu nekkee xale ñun dañ ko dañ ko màggalee. mais pour man euh, le président Senghor bàyyiwuñu ko mu yeggalee waxam. peut-être da koo wax rek gars yi jubilé. wala mu nekk junj mais am na lu mu bëggoon teg. Mm. loolu laay jottali tey. le président Senghor li mu bëggoon wax mooy l'an 2000 Dakar sera comme Paris. Mm-hmm. si fois évolution mentalité sénégalais bi daj bu français bi. Mm-hmm. parce que français bi intelligence la réaliser France. Mm-hmm. maanaam xel développement moo koy def. coow lii yëpp. de 1960 à 2021 buñ ci mënul dem nañu nangu ñun ñun ñëpp xel moom amu fi. wala jikko jooju amu fi. Mm-hmm. xam nga ndax comprendre nga ma. valeur d'une vie humaine comme ni ko sëñ Sidi mun sëñ Mountakha Mbacké waxee tenir ce mm-hmm. discours devant Ousmane Sonko parce que foofu la ñuy renvoyer. Mm-hmm. yàlla moo sacralisé bakkanu doomu aadama. Euh, Maguette euh, gis nga ressources États-Unis buñ ko booloon nag bu Allemagne bu Sénégal bu Guinée. pétrole beeg zircon beeg ni ñu koy waxee gerte geeg or beeg yi ñuy wax nii. buñ leen dajaloo ñoom ñëpp. wallahi lazi laa ilaha illallah baatu latir bi dee ci affaire bi. Hmm. am 17 ans xam nga 14 ans. Hmm. moo ko gën. Hmm. rawatina muy deretu doomu Sénégal il faut ñu jox valeur gëdd suñu réew. man de wax dëgg yàlla sama rêve mooy jiite Sénégal. mais wallahi man président de la république kuy tuur deretu Sénégal yàlla bu fekkee am na xalima bu ko doon bind. Hmm. xalima boobu day damm. day damm puisse-vous être commandant d'unité enquêteur ak gendarme ak loo mënti doon. Hmm. man ma nekk président Sénégal kuy toqal deretu doomu Sénégal. Hmm. yàlla dootu ko sàkk. benn yoon lay doon te dootul am. doomu aadama mooy développement. nit mooy développement. moo tax sa question bi. Euh, géej la quoi. da nga maa yéen question boo xam ne. tuuti naa mën nañ ko taawi tuuti naa pour tontu mën nañ ko taawi di ci wax. ak yeneen ak yeneen boo fi jeexalee nag mooy euh, li ñuy li ñuy dëgmal local yi euh, benn bi bi ma lay njëkk laaj ba xam sa xel dal na dina amam du am nit ñaa ngi koy wax. deuxième fichier électoral bi ubbi nañ ko te opposition bi dañu def benn proposition muy ku am extrait de naissance wala boog nga dem inscrire pour am carte d'identité ñi ko musul am. mooy primo votant yi euh, boo amee sa sa sa sa wala certificat résidence nga dem ñu bind la ci pour nga mën a voter loolu jàngat bi. xam nga euh, fichier électoral li nga ciy njëkk a def. Mhm. Euh, mooy. Mhm. du woon yoon sax. Mhm. yéen seen génération. Mhm. ngeen ñëw di fi fekk ay coow si fichier électoral bu ñu nekkoon ci réew mu sérieux mais Blaise man màgget laa de. non non man maa la mag fuuf <laughs> non man maa la mag fuuf. daa may ah. euh, mm, mm, mm. normalement. Euh, am na yenn débat yoo xam ni. yéen euh, dafa war a nekk comme ay. histoire quoi ay livre non non ay ah. histoire daf leen war a réew la quoi ngeen di poser ay questions ah moo kon lii amoon na fi mais yéen waru leen ko dund parce que noonu la ñuy defaree réew. réew euh, li nga dund génération bu nekk li mu dund. xam nga borom xam-xam bi dafa ne chaque génération de def part de mission. Mm. mais gars yi dañuy wax rek te dañuy bàyyi xel si lu mu wax. Mm. part mm. ñun bu ñu defoon suñu part de mission xëy na yow doofu laaj question bi. pour wax la ne rek c' est une honte que tey 2021 euh, ñuy am problématique boo xamante dafa tudd fichier. Mm-hmm. donc absence de de volonté politique boobu. Mm-hmm. teguwul ci lenn. lu dul mm-hmm. yi teguwul ci lenn lu dul de calculs politique politiciens. Macky Sall c'est un politicien euh, euh, euh, boo xamante ne moom ce qu'il sait faire mooy tappale njuuj njaaj calcul ak nu muy yàggee ci nguur. donc lii ngay wax nii. man je dis quand l'opposition euh, fait cette proposition. sa pertinence techniquement. Euh, je ne suis pas en mesure de, de, de répondre, puisque mm. peut-être il y a des, des, des techniciens plus, qualifiés, donc pour pouvoir répondre. Mais demain, sur le principe. Mmh. Sur le principe, je partage l'idée sur fait qu'Aîné mmh. m'a servir de raccourci par rapport à ce problème, mm-hmm. pour qu'en réalité, nous mm. menons enfin mm. ci ay local. Mm-hmm. Mais je doute que sincérité boobu. Euh, mu lal mu lal ko de part et d'autre. xaw ma ndax comprendre que li ma bëgg expliquer comprendre naa donc je que vraiment qu'il y ait euh, quelque part dans en l'air euh, cette sincérité maanaam bu mu rax ay galgal quoi. waa merci parce que tout est politique politicienne. Mmh. communication politiciens yi man damay def Macky Sall day wax benn wax. soo gisee ma yéex sama communication mën naa ci def six mois trois mois. di ko analyser di analyser waxi Macky Sall bi. Hmm. dafa mel ni comme bi mu ñëwee 31 euh, décembre ne non du wax wii. du ma wax non parce que su ma waxee wii non xam nga yi du ñu liggéey ji nga wax jooju xam nga kañ laay a léegi laay doog a trouver hmm. euh, argument face à euh, à déclaration. Hmm. su ma la ko waxee doo ko gëm de. Hmm. démb démb. démb démb démb. laay doog a xam waxi Macky Sall boobu parce que je ma je ma def retour en arrière bi muy taxaw ne jeexal naa. talatuma ay njuut njaaj. xanaa boobu xamuloo ne. su waxee loolu am na ñoo xam ne dañuy def dañuy dañuy dañuy nekk ci ay calcul politique pour remplacer ko. Mm-hmm, mm-hmm. c'est-à-dire donc li mu li mu loolu mu bëgg a actualiser tey nii. Mm. moo lay won ni en réalité. Mm. il faut que les Sénégalais le savent Macky Sall troisième mandat bi ci xol bi la ne. moom la bëgg moom lay dox guddi moom lay dox bëccëg. Mm-hmm. Macky Sall lépp lu muy gere fu mu toll nii. da mm. koy gérer en fonction du troisième mandat. xaw ma ndax comprendre nga moom bu baax comprendre naa bu ni ñu ko mën a jàngatee bari na mais li ci ëpp man li ma gis mooy c'est la peur. Mm-hmm. Macky Sall euh, il est plus riche que Macron dama bëgg nga xam ko tey. Macky Sall moo ëpp Macron xaalis. ci xaalis nii liquide quoi liquide Marème Faye Sall elle sait que sa famille s'est enrichie sur le dos du peuple sénégalais. mais est que defoo ay accusations yoo xam ne. xëy na mën nañ la toppee li ma am na benn code bu bees bu génn de. xam naa non xam Sall man ñemewu ma. ñemewu la moom problème am. Hmm. Pascal su waxee. Hmm. non ko ak yeneen homme politique ah ñoom dañu caa seen militant yi di noppi leen bu ko kenn tontu. Hmm. parce que seen problème ñoom système bi fi mu ma dugal mooy bu ma sénégalais yi xam. Pascal bu mu explosé. bu ko kenn tontu. Ah, lu mu argumenté lu mu metti metti noppi da nga mës a gis man ku ma weeti. bu ñu la tontee nga ni lu gën a garaaw. déggoo ma da nga mës a gis ñoom ci ñoom. déedéet man ñoom ñëpp laay corrigé. mais Abdou Mbow temps yi mooy génn di tontu de dina la tontu de. non mais non. à dire Abdou Mbow moom ragalul pour niveau bi. fi may waxee. ah d'accord attanuñu discours bi. d'accord c'est toute la classe politique déggoo li ma la. man hmm. ñëpp laay song. Hmm. ku ci wax dama lay corriger avec des arguments. waaw je corrige le président. Hmm. je corrige Ousmane Sonko. je corrige je corrige. presse internationale bi da koy jëlaat. da nga mës a gis ñu jëm ma wax ak man. il préfère ñoom ñi nekk seen biir boobu di kuñu parce que ñoom ñoo tolloo ay bagages. parce que c'est des c'est des gens qui mentent au peuple, mmh. c'est des gens qui se servent du peuple, mmh. c'est des gens qui, ne, qui même pas à verser le sang de la jeunesse. Mm. man 14 morts bu sa waay boobu non à mon nom. 14 mm. morts ma nekk Macky Sall wala Ousmane Sonko. Mm. jour boobu xaru day dagan. noo sama àdduna yàqu na. ma ñëw sama kër dugg ah, sama doom daw papa ma foog ko. mënoon boobu ma xañ ko 14 familles. sama doom ci miir bi laa koy dóor. wala déggoo ma. attanoo ko yow. sama àdduna yàqu na. Mm. jour boobu. Mm. attanu ma loolu. Mm. boobu ñàkk jom yàlla na ma ci yàlla musal. et ça les Sénégalais doivent ñi jiite dañoo ñàkk jom ci côté boobu noonu. mais c'est inhumain. wala yow déggoo li ma lay wax. maa ngi lay dégg bu baax. <laughs> Blaise <laughs> mais Blaise kontaan euh, nañu. Blaise da nga am émotion nii ci côté boobu noonu wala dangay ngay da ngay ree wala. non man je suis un kon homme maanaam nit nga hmm. daal. waaw wala góor yàlla nga. waaw mais nit. da ngay am yëg-yëg. non nit. c'est que l'hypocrisie humaine a ah, atteint son paroxysme dans notre pays. ça c'est vrai. et c'est grave. ça c'est vrai. yi nga politiciens yi. man mënuluma leen dara ko hmm. parce que xam nga dañ ma jiitu ci askan bi téye ko. Hmm. te fi ñu ko téye. pour ma dindi ko problème la. Hmm. moo tax mais Blaise si côté boobu askan bi kan la ñuy gën a déglu léegi nguur walla opposition parce que fi mu nekk nii loolu sax dama ko fàtte woon yaa ma ci yóbbu quoi fi mu nekk nii. seen xel dafa jaxasoo ci Covid dinañ vacciné wu walla du ñu vacciné wu. te dañuy gis ne léegi opposition lu mu wax. askan wi dafa mel ni ki moom la ñuy gën a dégg que nguur génn di ci wax. xam nga phénomène bi ngay wax nii. Hmm. dafa yàgg Sénégal. Hmm. Ablaye Wade nga yaakaar lan ma ko jox nguur. Hmm. Abdou Diouf Abdou Diouf Abdou Diouf Abdou Diouf sénégalais ñu xool est-ce que am na xam-xam. <laughs> jéemuñu xool am na talent. sànni xeer rek jéem c'est-à-dire sénégalais saagaal Macky nga am buzz. parce que seetlu nga ne fii buzz loolu koy joxe. loo munti mel. boo leen defoon lu la neex. suba attaqué Macky Sall ñu ne lu wax boo da attaqué opposition mooy li wax nii donc c' est une c' est un peuple bu ñu war a gunge. ndax àdduna. yàlla noonu la bindee. Mm. ñun ñëpp yemuñu. Mm. gis nga man li may wax nii. Mm. am na sénégalais boo xam ne mu ngi may seetaan peut-être. li may wax nii xam na 15 bi. noonu la ñu yàlla bindee léegi nag ñi tane il faut ñuy jottali. di may loxo ci suuf ñuy ñëw. mais ce peuple il est victime il est pris en otage par toute une classe politique 2013 laa ko wax. bi may indiqué. wax leen ne kat problème bi benn système la dañ ko incarné. Uh-huh. système du nit. Uh-huh. mais ay nit ñoo koy incarné. Uh-huh. jële leen fi nag mooy tax yow nga mën a ñëw changer. système bi ci laa lancé woon zéro politicien à l' assemblée. yaa ngi koy fàttaliku 2017. pour wax sénégalais ne 40 euh, ans la fi PS def 12 ans PDS 5 ans Macky Sall. résultat suñu réew mooy 25e pays le plus pauvre au monde. léegi lan ngeen di xaar ci ñi buub leen lépp ngeen toll ñu ne ma bu demee ku ñuy votel boobu Ousmane Sonko moo beesoon euh, Mamadou Sy Tounkara ma ni leen bu leen laal li fi nekkoon li bees li dem leen ci ñooñu ngeen votel leen parce que man nekk moon ci benn liste malgré que woo nañ ma proposé ma ma ne leen no combat bi may mën ne ki koy def kooku dafa war a isolé warul bokk fenn su ko defee sénégalais yi mën a gobe message bi mais peuple bi dafa xiif Maguette on l'a appauvri dañ ko fitnaal euh, xot ko ba finalement. xam Pascal bu ñëwee yorul dara. amul 4-4 yor sol sol torpédro ñëw di la rey ak ay wax ju bari mais màgget bi ñëw yor mallette bi. Ah. kooku lañ naan sëñ bi kaay parce que ñun courant facture courant bi ñu ko. ak waxtaan bi am na solo lool lool kontaan naa ci ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf man maa leen di remercier. Mm-hmm. et di leen baalu àq aussi. ci mm-hmm. euh, xaabaabal bi. Mm-hmm. je vous remercie beaucoup. non ko moom ñoo ko moom. Ah, yàlla dolli jàmm dolli sutura. amiin euh, dolli jàmm ci suñu réew. Mm, euh, delloo si xel yi. Mm. ak acteurs politiques yi mm. activistes yi. nañu dew ñoo rek. ku nekk rek bul jiital sa intérêt bopp. nañu xool intérêt masse bi. lii àdduna la rek dafay jeex quoi. Mhm. yàlla baax na.